grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba l'antenne hebdomadaire. kon mbokk téléspectateur u almouride yi ni ngeen ko gisee nii rek ñii ñooy nga xam ne ñoo bàyyi ko Louga jëm si fii ci Ndakaaru ci grande journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba ñoom nag xam ngeen ne ñoom dañoo def lu yéeme ndax dañoo doxe luga ba fii tey ñu ngi fii ci buntu Pikine ci station bi fas yéene egg nag fi nga xam ne mooy Masaalikul Jinaan daje faak mbooloo mi daje faak comité d' organisation comité de pilotage bi ñu dalal leen ngir rek ànd ak ñun ci grande journée yi xanaa duñ defar loolu tàllal ñenn ñi su suñu micro wax ñu wax ñu nun dina seen dox gi nun dina yoon woowu ak ñi nga xam ne tey ñoo leen dalal di waa daara Hizbut Tarqiyyah

waaw sëñ Khadim yéen ñoom yéen yéen a bàyyi ko Louga ngir grande journée yi ngeen doxe foofu depuis le 12 ñu bëggoon xam d' abord yoon wi nan ngeen ko dundee. waaw bisimilah mina shaytaan rajiim bisimilahi rahmaani ñu ngi santaat borom Tuubaa bu wér di ñaan sax Seydi Muxtaar Mbàkke mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñaan sax Seex Jëmb Fall mu yàgg fi loolu te ànd ak wér wax dëgg yàlla yoon bi feex rek lañ ko dundee maanaam bi ñu bi ñu déparé Louga wax dëgg yàlla waa Louga gépp dañoo génn donte lu muy guddi guddi guddi waa Louga gépp dañoo génn indi ay berne foofu ca gaar gam yaa ngi fay xasida berne wu ñu ànd ñoom ñu gunge ñu 3 kilomètres ci leen départ yi génn bi ñu génnee suñu première étape ñu ko def KMR 36 kilomètres lan dox ñëw KMR ñoom ñu gàttanu ci buntu dëkk ba wax dëgg yàlla dalal ñu yóbbuñ ci daara ja dalal ñu toppatoo ñu téye ñu bëggoon nañoo teel a yeeweeg fa waaye ñoom dañoo téye ba ñu ba ñu añ ba nopp bi ñu nopp lañ gontoo foofu lañ gontoo KMR dama fanaan ne ndaan fal bi fa ñëw yàlla waa dëkk bi yëpp génn waa dëkk bi yëpp génn dalal ñu waa dëkk bi yëpp génn dalal ñu teeruñu foofu it suñu borom dogal ah, ñu jóge foofu ci guddi gi Ndande Fall euh, jëm jëm ngaay bi ñu ñu àgg ngaay 7 heures fa la ñu ndëkkee waa ngaay tamit ci buntu dëkk ba lañu lañu xaar wax dëgg yàlla yóbbuñu ci ci daara ja dalal ñu ñoom it wax dëgg yàlla taxuñu dëkk bu ñu jaar ñëppay génn suñu borom dogal bi ñu jógee ngaay ñu jàppoon ne dañuy jógee ngaay dem pir dem dem tiwaawoon ñu xamal nañu ne pir foofu ñu taxaw fa ci nañ ñëw fekk fa ku am passif fa nekk euh, daanaam bi ñuy bi ñëwee pir sax mu ngi naan ñu bu ngeen bu ngeen dem sama doom du ma ko fi bàyyi waaw doomam mu ngi ni bàyyi na ab tout tànkam euh, bool na ko ñun wala ñu ànd na ñu ñu dugg biir pir wër pir mu dalal ñu foofu bi ñu xewaloo daanaka waxtu wii ay deux heures lañ lañ pare daal di uti tiwaawoon tiwaawoon Euh, bi ñuy àgg bi ñuy àgg si Tiwaawan daanaka ñoom it ci buntu dëkk ba lañ leen fekk ñoom it daanaka mën naa ne dalal nañ ñu foofu jàng yëkkati fa ay xasida yóbbu ñu lu mat 5 kilomètres gunge ñu ko gunge ñu 5 kilomètres ñu yaakaar dañuy wañeeku ñu ñu déedéet ñoom dañuy dem ba Thiès di gën a bi ñu dugg cees euh, euh, jëwriñ gi mi ngi tudd Basir moom moom moo ñu moo ñu jox ndékki sax moom Thiès moom moo ñu jox ndékki bi ñu ndékkee ba noppi ñu war a ñu war a jàll ci euh, ci euh, ci daara ja ñu xamal ne waa daara xamal ne ñoom duñ duñ def noonu faw ñu dem ci soxna si comme soxna si wax ne foofu loolu la ñuy def ñu nan nan def foofu ci lañ dem ca soxna si moom it mu woo waa Thiès gépp di dalee buntu Thiès ba kër Cheikh Abdoulaye Yakhine kenn xaju fa mbooloo mi fees dell ñu ànd ak ñoom wax dëgg yàlla dañuy dem ba ñun coono li ñu waroon yëg ci coono donte amul coono sax dootoo ko yëg te wér nañu wéral yàlla ne 200 kilomètres yi ñu dox ñun jëm yi ñoo doon ñoo ca nekkul nii rek mais du suñu tànk borom Touba ay tànk yu wér la ñu jox te tiituñu rafuñu gis na lu ne nag lu ne jéem nañoo faagagal waaye barki borom Touba borom Touba kepp la ndax daf ñoo dimbali ndax ñu dañoo dox jëm ci moom takk suñu fit di dox guddi nag neuf heures ci guddi la ñuy départ di dox ba sept heures jógaat lu gis nañ ko waaye taxawuñu nu taxawuñu lu ne bu ne bu ne bu nit di xalaat ne war nañ ko taxaw rek. borom tax taxawoo nañ ko. tey ak si ngeen Ndakaaru waa Hizbut Tarqiyyah ñëw naan gàttandu si yéen fii ci buntu Pikine yéen tey nan ngeen dundee bis bi gannaaw tawféex gi leen sëriñ bi defal ngeen dox ba agsi fi. waaw euh, ginnaaw tawféex bi ma ñëwee ba ba Thiès damaa jàll pour ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw fii ñëw euh, ñëw euh, Tëngéej ñoom it waaw Tëngéej wax dëgg yàlla dal nañu waaye bi suñu borom dafa yëg-yëg. bu gën a kawe maanaam Hizbut Tarqiyyah kuréel 1 bi nga xam ne lépp luy Hizbut Tarqiyyah tey dañoo ñëw gàttal ñu suñu maanaam lii dafa rëy na si ñun kawe na si ñun maanaam tey lii di bu fi yemoon nii ñu jaar nii sax daal daal di ñibbi baax na barki borom Touba doy na sëkk Hizbut Tarqiyyah li gën a yéeme départ Louga ba fu ñu taxaw ñu ñu wan ne fu ngeen toll diw mi ngi ñëw indi leen bernde diw mi ngi mi kii diw taxaw na fii maanaam tànk bu jéego bu ñu jéeg ñu nag ñoom ñoo ko ànd amul lenn loo si ni amul lenn loo xamante ni ñun jaaxle nañ ko ci yoon bi du du lekk du naan du xiif du mar lépp loo xam ne war na rek si wàllu dox bi waa Hizbut Tarqiyyah taxawoon nañ ko ñoo leen ci santaat di leen gërëm te dimbale bépp nag waaw. léegi euh, li ma leen mujj mooy euh, kenn ku nekk xam nga ne Serigne Touba moom ay kiimaanu nen la yoon wi lan moo leen fi gën a yéem benn rek lañ soxla. waaw yoon bi luñ ci gën a yéem euh, guddi gi nga xam ne ne maanaam lu gën a lu mooy. 65 cinq lañ doon dox par jour 65 kilomètres lañ doon dox par jour waaye li ñu gën a mooy ñun bi ñu jógee ngaay di dem Tivaouane dañoo jékki-jékki rek gis Tivaouane ñun ñëpp ñu naan lii lii la lii la lu xew kenn ci ñun mënu la lii moo xew beneen bi mooy Iblis ñun dañ koo teg ba jaxaran ndax dégg naa ci may ñu naan waxoon na ko ne bàyyi ma wala moo ne la ñu gis la ñun dañ koo teg bët jaaran mu bëggoon ñoo gàllankoor mu bëggoon ñoo gàllankoor waaye naka naka wér ne liggéey borom Tuubaa amu ci wàll waaw lii loolu lu ñu yëm la liñ jékki-jékki rek jógee ngaay àgg Tiwaawan yoon bi gàtt lool ci ñun ak Iblis lañ ko gis nii jaaran faale wuñ ko toppatoo wuñ ko mu romb ñuy dem muy dox doxam ñun ñuy dox suñ dox toppatoo wuñ ci lenn loolu bokk na ci lu ñu yëm mu leen wër ni la loolu bu bu bu pexam jumoon échec day am waaye 200 kilomètres yi Iblis mu ñu ko tee dox ndax ñun borom Tuubaa moo nekk suñu xol yi borom Tuubaa li ñuy moom la njëkk. moo tax dox nañ deux cent kilomètres ñëw Iblis jëm nañoo baare mais dara booy liggéey ngir jëmi borom Touba ci kanam rek barki borom Touba. bi nga xamante ne jugee nañ fi nga xam moo di Pire bi ma bi jëluñu woon décision jëluma woon décision daal di ànd ak ñi waaye bi nga xamante ni muy sama papa muy njëgandooy mi nga xam moo dëkk Pire ñoom ñii bi ñu awee Pire dañ leen dañ leen sama bëgg na maa ñëw lool waaye kattan moo ma ko mayul ni ma nag waaye am naa am naa am naa waaye ma sama gone gii nii doo leen ko fi bàyyi soo leen di dem daal koy wax suñu xaadim mii daani ko bëgg na maa dem waaye waaye sama sama yaram moo ak sama wér moo mayul ma dem daani ma da kon daani ma da ngay da ngay dox ànd ñoom ngir maanaam ma taxawaay fa ab taxawaayam kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax ba amuñ benn gàllankoor ci yoon yi ba suñ tubaa def ak xéewal ci ñu dox ci ñu dox ba dikk fii te bi ñu ñëwee fii tamit yéemu nañ lool parce que lii lépp ñi ñi ñuy teeroo lépp xalaatuñ ko woon ñun yaakaaroon nañ dañuy ñëw rek romb kon lii lépp xéewal suñ tubaa la te gis nañ ñi tamit lépp ba ñuy départ ak ña nga xam fa ñuy départ fa ñuy départ dañuy wutoon ay lekk ak lu nekk lu def waajaloo nañ ko ndax yaakaar ni yoon yi ak tumuranke dina am waaye suñ Tuubaa wan na leen ni tumuranke amul ci yoonam ndaxte jël na ma jël na jël na Hizbut-Tarqiyyah tamit taxawaay na ci benn taxawaay fuñ ci yegg muy ngaay muy pir muy tiwaawan muy kees fuñ ci yegg rek wane nañ ni hizbut moom taxaw na ngir taxawaay bi nga xamante ne moom ngeen jël lug a dox pour jëm si dakaar lépp ngir toppandoo ngir ngir lépp ngir jël li nga xam moom la mag ñi daan def maanaam am seen yool wala maanaam ca lii tamit day wane ni lépp lu ñu naan mënta ne rek ab taalibe Sëñ Tuubaa mën na ko ndaxte Sëñ Tuubaa moom amul lenn loo xamante ni moom suñ borom mayu ko ko parce que bi nga xamante ni lim def mu ñetti guddi ndakaaru yi tey ñu ñun tey ñu tam ñu fës koo feddali defal ko ñetti bëccëg mu nekk ñetti bisu mat sëkk yoo xamante ni kon dañuy wax ne sëñ mag moo ko def ñetti guddi ñun ñëw def ko ñetti bëccëg mu mat sëkk kon nag ñi ngi sant suñu Tuubaa bu baax ginnaaw bi nga xamante ni jóge nañ fii di eh, Pire ànd ak ñi nga xamante ni mooy suñu kilifa yi ñu àndoon ci yoon yi maanaam yërmande gu ñu gu ñeewantoon ñoo ak ànd gu ñu àndaloon ci ñoom ci bépp loo xamante ni ñu ngi ko doon wattu ci lépp di leen di leen ziar bu baax salaamaaleykum. ne tey lii nga xam ne sagu suñu Tuubaa la. xol bu xol xol bu fees ak yéemu ci ci sëñ Tuubaa te xam ne moom léppam kéemaan la kulliyat yi mu'jizatan la waxoon dañ daan dégg ku doxe Sénégal dem gànnaar nit ñi di ci yéemu waaye sëñ Tuubaa teyam junne day gàcceel démb lii yéeme na euh, bi ma jàngee kàddu yi ñu bind tawaali ilaahi buxnda buxnda sayri bi jaaxee wone na li nekk seen xol mënuma mënuma sori sama xol dafa fees waaye ñii li ma mën a waat mooy ëllëg duñ ñee kenn ci sëñ Tuubaa loolu maa ko wax ndax sëñ Abdou Lahad ne képp ku mës a jóg ngir moom tàggoo nga ak sa bakaari àddina ak alaaxira nee na ba mu koy wax Sarsara nee na da ko faa fekk waaye boo ba léegi képp ku mës a jóg ngir moom yaa ka ko fekk Sarsara yéen a bokk atti waaye ñi waxuma la seen sët wala seen sëtaat ku leen xam sëñ Tuubaa dina la dimbali loolu maa ko wax man foofu laa ci mën a yem mënuma continuer سهلا وخدامه

yaa